problème ensemble de vie gis nga nee wax ak coow moom bari rek waaye lii coow waru coono am déclaration premier ministre lan moo ci war di coow loo xam ne nii premier ministre moom lay neex rek mu def ko loolu amul coow mhm. te ñoom waa Kër Macky Sall nee naa leen li leen gën a lor à chaque fois rek ñoom chaque fois loi yi ñu yàq yi lii ñu daan jaxase di ko yàq rek bala ñoo xam conséquence yi rek dara xew gis nga lii lépp ñoo ko waral tey ndax keroog ba ñu génnee premier ministre ba ñu génnee poste premier ministre génne waale lii changé mu diw maanaam changé waale poste maanaam dëkk euh, assemblée nationale li ñu ko war a def lii gis nga ko teyaat ba ñu indiwaat premier ministre bàyyi ko noonu tey moo indiwaat débat nga xam ne ñoom seen règlement règlement intérieur bépp dañ ko daan jalgati mm-hmm. ñoom seen lépp jalgati la woon kon duñ ñëw ba tey Ousmane Sonko war a def déclaration boo xam ne saa yu ko soobee la ko war def ñu ne ko da ngay ñëw force ñoom liñ bëgg xam nañ ko ñu bari ñu ngi naan ay ay maçon sans civil rek non non loolu de ñoom xalangu gi Macky Sall Macky Sall xalangu lañ bëgg a taxaw ne ñoom ñu ngi fi ba léegi te ñoom xamu ne ñoom Macky Sall ñoom ñoo njëkk xalangu Macky Sall foofu ñoom ay weer ñetti weer leen fi desee pour ñoom bay laa yomal xayam duñu nekkati dara Sénégal muy député yi benn bokk yaakaar yooyu ndax Sénégal yi fàttewuñ nag senegal yi fàttewuñ liñ fi def lépp bi mag Sall ne day doxal élection yi seen loi yi ñu doon wootee yépp moo tax man su ma gisee ñuy wax wala ñu am fitu génnaa di wax dama naan ñii ñan lañ yëpp ak ñii ñan lañu war a waxal gis nga nit boo nekkee ci lu bon moo tax nit booy def defal lu baax booy wax waxal lu baax di mm. wax dëgg bis day ñëw lépp danga koy rëcc lu dul dëgg rek da ngay dong su ma yëgoon bañ fi nekkee daan def seen loi yu bon yooyu nga xam ne lu mag Sall indi ñu ne ñoo mag Sall mooy seen lu mu wax bëgg nañ lu mu wax ñu teg demoon ba bëgg taal Sénégal te lépp nag di ko Macky Sall def ñoom député yi ñoo ko jàppale woon kon ñoom amuñu benn leçon wala benn droit bu ñu war a wax Sénégal yi wala lu ñu war a wax Sénégal yi dégg nee naa booy xool ku jégal ma baat bi rek xaw a ñàkk jom wala ku ñàkk jom wala koo xam ni amul lu mu rus boo koy wër ba ñëw senegal moom da ngay taxaw da nit ku def lu na weñ def loo xam ne mënoon naa taalum réew mënoon naa jaxase aw askan loolu lépp suñu borom fexe ba loolu amut waaye rek koy xëy suba gisaat ko mu toog ci télé wala mu toog di ñe amat fit di wax gis ngeen seen yooyu ñu nekk nii moo jeex réew mi daa toll ci defaraat jub jubal jubbanti lañu woote jubbanti gi nag ci ñoom lay commencé ñoom ñu fi nekkoon yoroon yoroon euh, maanaam jiitewul Sénégal comme Macky Sall jóge jëlee na fi Assemblée nationale bi dafay jóge te jóge gi mu fi jóge nag yàggatul ñoom xam nañ ne li leen xaar ñoom ñëpp xam nañ euh, Ousmane Sonko bu dee débat bu dee waxtaan kenn gënu ko bëgg waxtaan kenn gënu ko bëgg debaa yaakaar naa mars ma 2021 ba tey ba ba ba keroog ñu Macky Sall di indi ay jafe-jafe moom dong moo daan taxaw buntu Assemblée nationale di wax ak ñoom ci état état bi lëm wax bu daan wax ba pare du wax ba pare day wax ba àggal. Hmm. ñoom ñëpp ñu jóg dem seen yoon. kenn du ko xaar sax wax kon kooku mu dee ay débat wala wax moom idée bu dee xam-xam rek ci xalaat xalaat bu rafet rek moo bokku ci ñoom sax waaye ñoom ci boppam. dañoo jàpp ne la woon moo fi nekk ba léegi comme ay euh, woo Ousmane Sonko mu toog ca buntu assemblée nationale ñuy saaga ak ay wax lu ñaaw ak loo xam ne nii amut Sénégal dépassé nañ loolu ñoom dañoo war a yëg seen bopp ne ñoom Sénégal yi amatuñ benn molaar wala benn respect wala benn xalaat bu ñu leen di bàyyee ñu koy wax ñoom ñoom leen leen war mooy démissionné la ñu waroon def sax balaa ñoo tas assemblée nationale bi mm-hmm. ndax ñoom mérité wuñ sax nekk ay député ndax fi liñ jaar lépp yow dem bay eh, yow nga dem ba sa conseil nga jàpp conseil constitutionnel si je fa nekk nga jekk-jekk tuumaal leen tuumaal bu rëy ñu ne dañ leen a ger maanaam dañ leen a dañ dañ leen a ger ci ak eh, ay milliards yéen amu leen ci benn preuve jekk-jekk rek dugg ensemble national def li ngeen def def seen loi dem woote nga xam ne ñoom liñ daan tuumaal Ousmane Sonko lépp Macky Sall bi muy avant mu fi jóge lépp da koo def muy eh, maanaam mboolem banqaaj Sénégal yi ñoom dañ ko doon salfaañe salfaañe gu bon goo xam ne da dem si àgg rek ñaa ñi is kay lañ kon amuñu loi amuñu benn raison wala benn loi bu benn xalaat bu ñu jox Sénégal yi Sénégal yi ci bàyyi xel wala di leen déglu ñoom liñ bëgg duñ ko am ba ilaa mi di mooy jàkkaarloog Ousmane Sonko ci ensemble national du mos duñ ko mos a am ndax ci leen ëppoon doole ëpp leen koom-koom ëpp leen di xalaat gën leen a mu muy Macky Sall yàlla dogal maa la mu bëggoon lépp suñu borom essekal la ko asuma ak àdduna du soppeeku bañ jàkkaarloog Ousmane sonkoo muy wax ñu koy delloo ndax Sénégal yi dañoo yàkkamti am ensemble boo xam ne nii Sénégal yi yëpp ñoo ci seen bopp amul député de Pastef amul député keneen keneen dañoo bëgg assemblée boo xam ne débat idée lañ fay indi waxtaan ngir Sénégal lan mooy fexe ba Sénégal koom-koom bi gën a yokk nañu fexe ba dund gi ñu wàññi nañu fexe ba gën koo wàññi nañu fexe ba ndaw ñi di liggéey Sénégal yi moom seen bopp di xalaat maanaam di indi fa ay xalaat yoo xam ne ni ensemble boo xam ne ni mooy gunge état bi ci gu leer nañ lépp lu état bi def. lu baax ñu ne ko ayo gonga li bés juumee bëgg a def loo xam ne nii Séné arrangé wut Sénégal yi ensemble bi taxaw na ko lii nga bëgg def nii Sénégal yi ànduñ ñun ensemble boobu la ñuy xaar moo tax Sénégal yi fii nii yàkkamtuwuñ sax nañ bëgg ñoom liñ gën a buñ sañoon tey tey tey sam ñu bëree bëri Sénégal buñ sañoon tey tey bu ko bu président bi mënoon tas assemblée nationale da koy tas tey. ndax amul benn njariñ dafa fa nekk duñu référence ci lenn nag ñoo xam ne ni buñ taxawee la ngay njëkk a def boo tax taxawee di wax saaga wax lu ñaaw xaste yow ay kuramag ay ay ay farbo Ngom ay Aliou Dumburu saw ah ay kii sant Diop noonu député Touba boobu ñoo xam ne da leer na ñii xamuñu dara ci Assemblée nationale xamuñu dara ci luwaay Sénégal yi ñoom leen doog la neexoon alal ak maanaam fuuy bew di def lu la neex ànd kook soxoor ko mat sëkk nag waaye loolu lépp suñ borom din na ko nag moo tax fii nii xamutuñ fi ñu taxaw nañ dalal seen xel te xam ne la woon woon ni la réew mi bu yaakaar ne man nga ko man maanaam du defaru wallaay da ngay nelaw réew mi danañ ko jubbanti ba mu mat sëkk danañ ko defar te képp koo xam ne nii yaakaar nga ne maanaam politique politicien wala da ngay xuppaate wala wax moo tax ñu lay woo wala kii da ngay nax sa bopp kon nañ bàyyi seen caaxaat te respecté Sénégal yi xam ne Sénégal mm-hmm. fa mu bëgg a jëm dana fa àgg seen yii ñuy def nag man nee naa dañuy dégg naa ñu ne dañuy def conférence de presse ngoon nee na xanaa ñoom bu ñu amoon kersa li ma la wax léegi rek bu fekkoon ñoom am nañ bañu rus wala ñu am benn gis-gis ñoom waruñoo yëkkat seen kàddu wax liñ fi def ci tooxi doon ci Sénégal bi ak ci musiba lépp loo xam ne nii lépp loo xam ne luy toroxal Sénégal yi rek bu ko Macky Sall bëggee ñoom pare nañ ko defal ko ñii ñoo war a taxaw ne ngoon lañuy wax lu ñu war a wax ak ku ñuy waxal xanaa seen bopp la ñuy wax waaye du Sénégal yi la ñuy waxal nañ yam te jéem a liggéey man dama naan gis nga système bi fi nekkoon ku ji amul liggéey dama liggéey te xam ne politique moom ilaa yu mu diin pare na ci kenn dafa faluwaat ci lenn ci ñoom ay wax ju bareek yuuxoog saagaak wax lu la ñaaw ak loolu ci man munoo wax a wax a wax ba amaat fi dara benn ndomba tànk Sénégal bi takkalaaloo système boobu passé na nañ dem liggéey tool yaa ngi nii di ñëw hmm. mbay maa ngi ñëw nawet baa ngi ñëw nañ jëm wuti tool ku ci ami tool la ko wuti am wuti tool dem mbay ku ci mën a liggéey dem liggéey ku ci mën a moodu moodu dem moodu moodu hmm. bu dee Sénégal gi doo ñoom pare nañ ci kenn du fi faluwaat loolu moom te say boo ñu xam ko bu baax a baax àdduna du soppeeku ba benn député benn bokk yaakaar bi taxawaat ne mooy jiite fenn fii Sénégal Sénégal yi liñ dund deux mille maanaam mille cent soixante la ba tey ba deux mille vingt quatre ñooñu xalaatuñ ci ko dundaat ci Sénégal ñun ñu ngi fas yéene xool ni ñu fexe ba pétrole lu Sénégal bii génn lu ñu fexe ba am maanaam Sénégal yi jot ci jot koo xam ne nii danañ fexe ba wàññi courant bi wàññi essence beeg gasoil beeg yëpp Sénégal yi am sécurité Sénégal yi liggéey si doomi Sénégal yi am liggéey ba pare mën a am kër guñ mën a dëkk. Mhm. yii mooy soxlay Sénégal yi waaye ñoom seen débat yu ñàkk fayda yi nga xam ne xamuñu bu njëkk barki démb gis nga li njawoon bi gaa yi toog dund gi mënuñu koo wàññi nañu wàññi dund gi nañu wàññi dund gi tey wàññi dund gi amuñu benn débat ensemble ensemble ñoom seen nit ñi dañuy dem ba xam ne dañu xam ne ñii ndekete ñuy jiite woon ñun yàllaa ñu dimbali waaye ndekete ay nit jiite wuñu yoon mhm. ñu am xel am référence ndeke jiitewuñu woon ay nit yoo xam ne ndeke seen xel yi dara nekkul ñoo ñooñu jiite woon ndeke mhm. waaye sant yàlla bu baax ba leen fi yàlla jëlee ndax nit adduna fi mu toll nga xam ne réew mu ne yaa ngi jéem a xool nooy moome sa bopp réew mu ne yaa ngi xool nooy fexe ba am koom di bay di dunde mhm. débat yu am solo yooyu ñu waroon ko teg déedéet di ñoom duñ ko def ay ñàkk fayda la ñuy wax ay premier ministre war naa ñëw assemblée nationale waru faa ñëw war naa def lii moom moo ko njëkk def soo xam ne ni ah Ousmane Sonko bu dee débat rek bu dee ñëw assemblée nationale incha allah rabi dana fa ñëw loolu moom jëru yàkkamti hmm. dana fa ñëw te bu ñëwee dana indi programme moom wax leen li mu bëgg fi mu jëmee Sénégal ak li mu bëgg def Sénégal waaye bu dee ñoom ma dong bu dee ñoom ñii dong ne ñoo yaakaar ne Ousmane Sonko dana taxaw ak ñoom di wax ak ñoom loolu da yomal xëyam lay doon hmm. ñoom say boo ñu xam ne fekkee ñoom kese Ousmane Sonko pariwut pour jàkkaarloo ñoom di wax ndax ñoom amu duñu référence duñu ay nit yoo xam ne nii am nañ idée amuñu xam amuñu xam-xam amuñu lenn loo xam ne nit ñi mën nañ leen cee bàyyi xel di leen déglu kon nañ respecté seen bopp te dem liggéey ku ci mën a bàyyi nga dem bàyyi ku ci mën a dem ambilaaji nga dem ambilaaji sàcc nañ alalu Sénégal yëpp ñoom li li leen xaar xamaguñ ko sax bu gën bis bu soobee yàlla bis bu assemblée nationale di jógee ba ñu doon assemblée nationale bu bees ñoom ñëpp kenn ku ne la nga defoon da nga ko la la nga lekkoon da nga ko goxewaat hmm. ñii ñàkk nañ fayda trop te sonal nañ Sénégal yi ñoom seen seen bopp sax lañu sonal ndax Sénégal yi déglootuñu leen mm-hmm, Sénégal yi am nañ respect bu mat sëkk am nañ personnalité am nañ xalaat yi gis-gis yu bees yoo xam ne ñoom kenn déglootu leen mm-hmm. waaw wax ju ñaaw wax ju bon ay wax joo xam ne soxor la mm-hmm. loolu moom ñoo xam jërëjëf jërëjëf ok maa ngi kontaan bu baax te émission bi dee leen ko def nag macha allah non dañ koy dañ koy def am na solo lool nit ñi dañ koy bàyyi xel incha allah rabbi ok merci beaucoup jërëjëf jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, ci kàddu yu am solo yooyu la di xaarandi ne rek ci bu jokkoo bi ci 77 8